dali naa jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo woppi coronavirus ji nga xamante ni nag maanaam moom moo lëmbaaje àdduna bi defee ay giraawale kii njombe yu rëy maanaam bëriwul loo xamante ni wopp ji jamono ji maanaam tagga témbeelu ko yéenekaay gii di réew mi quotidien ci xalima ak Assane Samb daat nay wax ne woppi coronavirus ji bu taxee nag Sénégal amal ab gouvernement d'union nationale maanaam bu mu leen bett te nag loole maanaam lu mën a nekk la ginnaaw nag woppi coronavirus ak nag njombe yeeg giraawaali yi nga xamante ni maanaam dana ko fi daa di bàyyi ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien Assane Samb ne li nga xamante nag maanaam mooy dialogue national bi foofee rek mën nañu faa jaaree nag profité fa nag jubbanti nag rëq ak réero yi nga xamante ni maanaam moo amoon diggante ñi nga xamante ni ñoo séq languk politique gi yéen gi mu ñuy xamal nañu ñu te nag xam ngeen ne jamono ji ñoo ngi wax nouvel ordre mondial te nag bu ñu fi waxee nouvel ordre national maanaam bu le leen bett ba cas gouvernement d'union nationale ginnaaw woppi coronavirus lu mën a nekk la waaye nag ñëpp mooma du ñu ci ànd yéen kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal ñu am na keneen koo xamante ni daat nay faatu ni ki démb kookee nag mën na ñoo wax ne xale la ndax ay atam toll na ci fanweer ak juróom ñaar ma nga dëkkoon ca rëbës moom nag ma ngi tudd Eric Agbo journal bi nee na moom nag amee woon na woppi coronavirus waaye nag wopp ji daf ko fekk mu amee woon ay jàngoro yoo xamante ni yu doy waar doy waar la ndax moom moomu am 37 ans amee woon na diabète na hypertension amee woon na asthme yéen a kaay gii de las mu ñu xamal naan lu toll si ñett nit ni ki démb daal di nañuy faatu woppi coronavirus ji moo leen daal di tëral yéen a kaay gii de ne ki nga xam ne nag moo ci faatu ca diiwaanu cees kooke nag ay atam tolloo na si juróom-ñeent fukki at ak ñeent maanaam tuutee tee mu am téeméeri at moom sax dafay amee woon jàngoro jii di AVC yéen a kaay gii moom ti mu xëy di dëggal ne lu toll si ñett nit daat nañuy faatu ni ki démb daal di si yokk sax ne ki faatu ca diiwaanu Thiès moom nag këram sax la faatu loo ginnaaw bi mu faatoo nag si la ñu ko daal di defal nag ay prélèvement si la ñu xam ne dafa amee woon woppi coronavirus yéen kaay gii de moom mu xëy ñu xam xamal naan ñu ba tey daal woppi coronavirus ma ngi gën di tiital ñi nga xam ne ñooy askan wi yéen kaay gii de la turbine mu ñu xam naan ñu am na nag benn xale boo xam ne ñaari at la am ca diiwaanu Mbuur moom dafa amee woppi coronavirus ji cas communautaire la waaye nag daat nay jege yaantoo ak lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent maanaam ci ay nit bomb boobu kalaate bu mu leen daal di bett yéen kaay gii de ci force Covid 19 bi maanaam mil milliards yi nga xamante ni moom la ñu daal di teg ngir nag saafara si jafe-jafe yi nga xamante ni Covid 19 daane koy andi ci réew mi waaye nag jamono ji piicoo ak mbaaloo daat na say am ak réeroo gu mat sëkk ci ñi nga xamante ni maanaam ñoo ko séq ndax nag bokkuñu daal maanaam nu ñuy waxee ak nu ñuy gisee ca mbir ma moo xam ña nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum tasum xibaar wala wàllum hôtel wala patronat bi wala transport wala sax njàng mekk njàngale mi yéen a kaay gi réew mi quotidien ñu fekk Mahi Sagna la ñu xam le nag maanaam mbir mi kay pëccaxoo gu rëy la li nga xam ne mooy force covid 19 bi ñoom daat nañuy ñaawlu lu bëree bëri yoo xamante ni am na ca wàll wa ba pare nag di sàkku Mansour Faye mi nga xamante ni moom lañ dénk lépp loo xamante ni jëm na ci séddaleeg wàllum dund geek yu si aju daal di tekki ndombal tànkam ci gouvernement bi ndax ñoom li ñu gis bu amee ay rëq-rëq ak i njuuj njaaj yoo xamante ni ñoo ngi ko say nemmeeku lépp moom la yéen a kaay gii de la soleil moom mu xëy di ñu xibaar di ñu wax nañu artésimia Madagascar daal nañu koy jox Sénégal protocole de recherche bi comité scientifique bi ñoom daat nañu koy valider maanaam daat nañu koy dëggal yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal naa ñu gendarme yi nag jamono ji maanaam takku nañ ba dëgër yéeg ci seeni oto daal di ngàndaayu lool taxaw nag ci buntu Médina Gounass di xaar autorité yi wax rek ngir nag ñu ne sabax dugg ci biir ndax nag journal bi nee na Médina Gounass maanaam ab gox la boo xamante ni li nga xam ne mooy état d'urgence bi ñoom respecté ñu ko mel ni sax ñoom bokkuñ ci réew mi ndax nag bu vingt jotee jëm kaw lépp daal ñoom ñoo ngi dox seeni yitte journal bi tamit yokk sa na li nga xam ne mooy jullik ajuma gi nga xam ne dafay faral di xumb lool ca gox boobee tamit ñoo ngi koy daal di amal li am ba des daal mooy gendarme yi nag ñoo ngi takk taxawal dëgmal ñi nga xam ne ñooy waa Médina Gounass yéen kaay gi nag xëy di ñu xamal naan ñu moom enquête ñu bëree bëree bëri ci réew mi maanaam feebar nañu ba sonn te nanguwu ñoo dem ci kër docteur yéen kaay gi du source a mu xëy yóbbu ñu diiwaanu Touba ñu fekk fa Maymouna Diallo mi nga xam ne moom lañ wax ne moo soode woon borom këram moom nag bi ñu ko laajee maanaam enquêteurs yi la mu xamle nee na nag borom këram moo ko wax na ko suma ma jullee ba pare dinaa la duma te nee borom këram da ko yàgg fitna la ci nag ñulug bi mu tegoon doon ci togg moom la ko daal di xëpp ngir nag bëggoon a rëcc yéen a kaay gii di mu ñu xamal lan ñu Bara Gaye bu Kilin Oil ak soxnaam si mu doon takk di na ak Alassane Mbaye Adja Diallo ñaaxarañ loo ñoom nag tey jii la ñuy janoo ak procureur yéen a kaay gii mi quotidien mu ñu xamal lan ñu am na nag yeneen ñaari VIP yoo xamante ni teg nañu leen loxo ci wàll wàll woowu yéen kaay gi di Stades ak Record mu ñu xamal lan ñu juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2012 tey di juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2020 juróom-ñetti at ba Jules François Bertrand Bocandé génnee àdduna ba léegi ni nag muy des ci xol yi yéen kaay gi di sunu laam mu ñu xamal lan ñu saison 2019 2020 mbër yu bëree bëri laalu ñu 15 waaye nag mbër mi nga xam ne moo ci gën a riche mooy Ama Baldé ndax nag moom encaissé na lu toll ci ñaar fukki million ak juróoma te sëggagul bëre